nañu bay wax ne ben nit ak ben parti mënta gagné parce que Siméra bo porté ben projet wut say parrainage ñeu joxe sa caution yor sa programme commencé di campagne mais élection présidentielle rencontre ben nit la ak le peuple bu xolé né ne Timéra ngi ni déglu nako pendant vingt et jours porter na programme mais boy jël bulletin bi Timéra mo ci nek nga duggal ko ci urne bi Timéra man na élection devant des des des des coalitions nañu bàyyi loolu benn nit mën naa présenté wu fii gagné élection yi parce que nit ki la gars yi di voteel ak programme bi mu am tant que nag génnewuñ ci bopp nit ñi ay coalition kese kese kese da ngay jëm ñëw fii dugg ci biir piège boobu ñoo xam ne ñuy xoola yoruñu dara loolu récépissé ñëw ànd ak yow ne dañoo def coalition di la imposer ay forme de gouvernance su réew mi ci amuñu compétence yi parti lan yor ak seen làmmiñ nga jël leen ñu encadré la

ci logiciel de vérification nous donnons nous documents né ñu non électeurs ça veut dire tout simplement amna benen fichier bu kooku parce que électeur bi bu qu'il y gennul ci base de données bi ñu vérifier ça veut dire que dafa am une base de données et ça c'est le c'est le lieu de le dire parce que bari na ñoo xam ne yàgg nañuy wax ne am na yeneen fichier électoral kon lii deful lu dul firndeel ni am na yeneen fichier électoral yoo xam ne mu ngi au niveau de la direction générale des élections au niveau du ministère de l'intérieur ñom ñi nga xamné ñoo wara saytu gëstu mbir yi lii nag gàcce ñu bari dañu doon laaj oui mais lutax gëm sa bopp comme si ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañu ñu sing bi preuve yi nga xam ne moom lañu indi ma ma jox la preuve yi ngeen yokk gis nga pièce d'identité de ak document yi ñu ñu jox dama leen koy jox yéen la presse comme yéen da ngeen jottali di ngeen fexe nit ñi xam dëgg gaa nii vous pouvez leur distribuer ça mais ma bëgg ñu xam nous allons saisir le corps diplomatique au Sénégal nous allons saisir également la société civile parce que même qui est une société civile nous avons une commission de vérification il faut que ñu avons une société civile qui xamuñu lan moo nekk

Barthélémy Dias yéen gisal seen bopp ñu ngi fii ñu fi ñëwee avenue Blaise Diagne jël yoonu tribunal de Dakar. Et nous continuons à inviter les populations à se mobiliser pour la démocratie et à se mobiliser surtout pour l'avenir de notre pays. Donc je laisserai le soin au président Ousmane Sonko de faire la déclaration. de citoyens bu engagés. débat bi nekkatul liste de Askan Wi kooku féet féet en ko boor débat bi mooy Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi loolu je wax ji nous sommes ñoom Nous qui nous wax amee dañuy génn di jaay dang sommes dégg loolu ñu jël def ko tête de liste démb force restera à la loi Nous avons ko fekk la ci force restera à la loi et la loi nous mu wax ci Benno Bokk Nous warul bokk élection ñu Nous wax conseil constitutionnel jamono ji ñuy wax ni conseil constitutionnel déposer na recours déposé

complot attaqué opposants yi ku ne d'accord ma nga tëj jaay suñu réew jaay alalu réew mi wër di yelwaan suba ngoon naan tubaab bi jox leen ñu kooku Sénégal ci boppam moo dayal ci moom 18 yooyu nag moo ko fi dese bu yaakaaree ni mun na jaar ci ëldëb pour pour pour li nga xam ne moo war a acté définitivement la fin muy élection législative yi ndax na boppam loolu lañ ci bëggoon wax ci lu gàtt di delloo si di delluwaat di masawu ndax am na nee nañ ñu ci provocation yu am ci yoon bi am nañu ci gaañu ñii di jóg di provoqué dañ wax ñu tey. semaine passé ñëw nañ. wala fàttalikoo indil leen dossier boobu la ñëw nañ fi ñoom ñu xamal ñu ni ñoo ngi ci parrainage bi ba tey moo tax mun ñu jël dossier bi et tey ci altine la ñuy ubbi lépp lu jëm examen dossier wu candidature yi nga xam ni jot nañ ko. et que nanu bàyyi ba booba ñu dellusi si li yéeme nag mooy ñëw nanu comme ni nga xam ni noonu lañu ko demande woon tey fii mais pendant une heure de temps yéen a ngi taxaw maa ngi woon ci biir di waxtaan ak ñoom ci njekk ak teraanga pour ñu jël dossier bi nga xam ni mooy dossier wu yeewi askan bi te loolu nit waruñu ko tere mais à notre grande surprise malgré la ma noire wax insisté ci liste dossier Et évidemment, il est important de savoir que suite à un long combat des démocrates, pas seulement des femmes, mais des démocrates de ce pays, la parité a été instituée. La loi sur la parité, je le rappelle, stipule clairement que dans les élections, toutes les listes, dans les élections, toute liste non paritaire est irrecevable. Et cela, c'est ça la loi. Elle est irrecevable. Elle n'est pas remplaçable. Il ne faut pas jouer avec les mots. La loi dit clairement qu'elle est irrecevable. Et permettez-moi quand même de douter qu'il existe dans ce pays des politiciens sérieux qui ne le savent pas. Je ne pense pas qu'il y ait des politiciens sérieux qui ne savent pas que des listes, quand vous allez aux élections, doivent être paritaires. Et de manière alternative. S'ils ont fait le choix de présenter des listes non paritaires, mais qu'ils en assument entièrement la conséquence. Et la conséquence, c'est l'invalidité. Nous avons entendu, et nous le dénonçons d'ailleurs avec la plus grande vigueur, les insultes à l'endroit de nos institutions. Ce Sénégal nous appartient à tous, que nous soyons de l'opposition, de la majorité, ou que nous ne fassions même pas de politique. Le Sénégal est plus grand que nous. Nous l'avons trouvé ici. Avant, nous le laisserons ici. Le gage de la stabilité de notre pays, c'est la solidité de ses institutions. Donc nous intimons l'ordre à cette opposition de respecter nos institutions, de respecter les forces de sécurité, de respecter la justice, de respecter évidemment la première institution du pays qui est le président de la République.